شيخ ابراهيم جوال مشال نكو خرجت من جلف لله في سفر اكرم به سفرا قد حاز كل يد خرجت في سبت في شهر ربيع الضحى جري جف سيرين غانا مسري مختار لال نغا بونك بو خامني سايكو لالي خولي مول ديب توي مي كرو بي سيرين بامبا خالي مرسول تاغوتو اك بروم دارو موختي تاغوتو اك جابول ген وور دك menikah. barakallahu alxaaji Gana Mesere Maxtaar yaakaar naa ne deg ngeen nimu top le Serigne Touba Serigne Touba gor ndax yanu na yan bo xamne eh, ak njabot taxut mu yanuko beug lu am taxut mu yanuko dajale mbolo deg ngeen ko Serigne gan waxe waaye bëgg noo xettali bëgg noo dimbale bëgg noo yërëm rek a tax sëñ tubaa yenu yen boobu sëñ tubaa nag nekk yërmande joo xam ne su borom moo ko def ci noonu muy xéewal innama sayxu nihmatan anhamallahu bi ayatin min alxayati loolu naar gànnaar boo xoon sëriñ tubaa daal xéewal la gu yàlla wàccee muy kiimaan ci biir binde fi xéewal googu nag ku gore te des gobar cee kii si ngaan xam waxtu yi kii dañ koy sëmbatal rek ndax mën na def jotaay bu mel ni sëriñ tubaa te laaluñu dara ci géej gi léegi nag jógee nga ndar yaa ngi jëm Dakar nafaali xayru laa xam ne fii Dakar kon nag bu ñu ci àggee waxal na boppam ne ba mu duggee ci gaal ga àllaman ni rahmaanu fi safina bi ànd ni xadimu sil madina kon ginnaaw nag da doon sàkkoo liggéeyal njol màkk ay salaam te ba mu tegee tànkam ci pays gaal gi la ko sama borom xamal ne ko yaay liggéeykatu njol màkk loolu léeg lañ bëgg nag nga sëmbataloo ñu ko rek ndakaaru tàbbeeg ñun ci géej gi bu ko defee rek ñu jeexle ci jotaay bi waaw alxames la ñëw mhm. ñu yóbbu ko ci camp ba mhm. euh, mu boole coono yi bi mu ñëw nee na waxtu timis a ngi bëgg a jot bëgg a dog ndax dafa woor wax ne aka neexoon maam lu ma dogee sama koor ngir dundal na <laughs> eh, wenn waxambaane ñëw na ma am néeg nga ne neex naa noppaloo eh. Eh, néeg boo xam ne nee na koo na mu ci moom dundoo ko ci dugal wala ne tàng ak xat ak ci nekk ci yëpp na keroog tànk bi mu njëkk a yor rek ci ràbb la ko teg daa jëluwul ginnaaw daa teg mu sar mu teg beneen ñu ne kàpp nee lu gaaw gaaw yàlla yónni Jibril na ko xoolal xol bi mune oh ba mu jàmbar rek ma ma ko xaj ak fim jaar ne bi mi ñëw def naa istirjaa ñet la fek ashabru wa shukru wa muñ sant gërëm yàlla tukki bépp wëlal fofu rek la sëñ Tuubaa ne moo fàttalikoo lañ ma fa def sama xet jihad la nek ila ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa thabuta taarat ila al jihad bil armahi nafsi walakin dabba anima amna fa yari gudd yo xam lekul nanu lu ci leri borom waaye mu ne tanzilu man min minni lahul azkaaru mahalla si waqaha fi laka ba gaaw ba nag <laughs> le 21 septembre ñu génne ko nag bi ixraaju xutbul asr la suñ mulaay bu sa wax itbaana annahu yulinu xuluban bax la jami shawarib mu daal di yéeg nag gaal gu ndaw lañ ko dugal gaal gu ndaw gi moo ko yóbbu ca gaal bato ba gaal gu mag gi mu tàbbi nag ba muy dem ne xaribun la daa jundi la xëy na Abdoulaye Salim loolu la wax dafa ki amul kum àndal ken wetli wuko loolu xalima ak da rek baye boba mom neena rafiqi rafiix yi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bar hina adu neena jimmi jimmi alquran la àndal ak sahaba yi ahlu badrin ak rasulullah waye alquran mom mo ne mo sàkku ci yàlla ne ko boole maag ahmadou bam buñ taggo ramal kitaabu kawnuhu ma am bila tafaruqunu bi xabila sëñ bi tabbi ci galgi bam ba ci galgi سيد مولاي بو سو نكو موميت واخنا كو ني ركوب الفلك حل جسائر غريبا تريدا حدها في الخسائد غينا بام تابي سي گيج گال گي نك جار سي نك اي بيربي بري تود نكو سي خسائد كونا كيري دومي غرام بالا بافلي فوفيت تي لا جولي گيج گي خيوي سيد مولاي بيندكو وفي اليم صلى العصر يجري بجلده مع الفلك يبدو راكا خير الساجدين bata bi daw dal bi lang ak momi sujul sujul jek hmm. yalla jaral ko sanni deram ci geej kabar la 21 le départ jaar konakiri bara anillahu lada konakiri min kulli jalibin ila al manakiri mi ngi aksi le le le le 3 octobre mi ko aksi cote d'Ivoire mi Grand Bassam yoon wi am nay khat khat ndax leg leg tuba fi ñen ñi di ko wala katchori waaye azaba la fi garambasa khablu mubarisin wa ni xalbasa la 3 la def Grand Bassam bala 23 20 jours la def Grand Bassam ndax boobu am na tubaab yu lu doon topp ginnaaw ba la fa jógee nag jaar ci béréb yi mu jaar jaar ci béréb yi mu jaar ba tabbi ci Gabon nga xam ne béréb yu wuti daaw me béréb yu bare bari jaar na fa béréb bu ci nekk bu fa jaaree te booba dem fa jafe ndax roqe ga ak sori ga wax na sëñ Abdou Karim Touré na ko guddi gi ma jëkkee fanaan Gabon sëñ Mbacke Diouf te ne ko Mbacke Diouf guddi gi ma jëkkee fanan gabon wéet fa ba melni new bo tabal ci ba mel epokam nibi allah waaw gisuma fuko xam yalla gisuma ko yut ay ba fa saxeb dir nag ko wax lu mu nurut dama ko nar def yalla yalla gabon ngi ray hmm. waaw ahmadou gumba tële na ko ah, ak nit feneen nit ñetti at waxtu wax kañ lay jeex mosul wax bu ma yëgoon mosul wax sonn dëgër rek monsieur fa la jëf ba mu faat waxtu baa mu tiim lu juyoo ak boromam baa mu koy fàtte waa Touba amul kuy dajeeg nasaraan bi juróom-ñaari xat yu mat te yàqun tawxiidam kuréel yow Serigne Touba amoon nañ fa reyin yoo xam ne rey nañ fa kulal te ba mu fa teewee xar nga fay baax ba dem Touba juróom-ñetti at di tawte di xiif di mar di sonn ba yàlla dajaleel ko la mu bëggul lépp mu ngoor ko. fetal nañ ko fa dugal nañ ko ci kàmm taf nañ ko ci garab boole nañ ko ko ci gaynde lépp ba mu xëy lépp jeex hmm. mu ne lillahi xad wasaltu inda galwa wasaana ni amaayi jurul balwa katabtu fi fil baxri bind naa ci géej gi ba ma fa nekkee contrat bu wóor boo xam ne musuma tàllal sama loxo jëmee ko ci nasaara ngir sàkku lu nekk ci ñoom waaye bind naa it ci géej gi ginnaaw bi jihaat ji jeexee ak tàggoog samay bala ma tàggoo moom waaw nga xam ne mat yu nu liggéey woo ba mu matee mu am ndigalul bàyyi ko ci réew ma it war a dellu si waat indaale woom yi indaale ngëneel yi indaale tawféex yi muy tukki boo xam ne daal mhm. tukki bu yaatu la <laughs> tukki bu bari ay ngëneel la tukki bu bu bu bu bu matale la boo xam ne mhm. kenn mësul jëf tukki bu mel noonu mhm. waaye sérité bi ko ci yàlla joxit kenn su ko am mm-hmm. laxad rajaxta bi ma lam yarjaxanna bihi dul xajji wal gazwi aw su tajri min mm-hmm. lii fii mu jaar nii ak lépp nag mm-hmm. moo waral màggal gi rek màggal gi lii lépp moo ko waral sax la ñuy tëjee ah. sunu kàddu Serigne Gana Messere Makhtar jërëjëf euh, Serigne moom kenn mënu ko jeexal ci ay at waxuma la ci ay minute waaye dañ ci tënk rek dara luñ mën a barkeeloo te ku ne xam ne li yóbbul màggal la waaye Serigne Gana ñu ngi nag ma dëgmal màggal Touba 2020 mu mel ne kon euh, cëslaayul màggal gi xam naa dañu ciy tënkal tuuti rek waaye nag ñëw ak ñun ci ndigal yi ci Serigne taxa Mbacké joxe ak ni ko taalibe bi war a fonke loolu rek ñu ciy dénkaani rek ñu mën koo tëjee jotaay bi waaw màggal gi yaakaar naa ren sax mooy doon téeméereelu màggal gi du ko sori wala boole ndax 1921 20 la ko sëñ bi joxe woon Talses 1339 la sëñ bi joxe woon ndigal li mhm. ca njaareem njaareem la jëkk a màggale ci Talsesin la àggale fii la ñu Bàmba jommale ci Bàmba sëñ Moussa Ka loolu mm-hmm. la da daan def saa yu bis bi dikkee rek muy xaar natt bi nee nah, na natt bi moom saa yu fukki fan ak juróom-ñett daan dikk rek bu fekkee 100 la 100 multiplié par 100 <laughs> du plus 100 mais multiplié par 100 par 18 safar nee na ba mu xëy nag ci rek di waaj natt bi dëgg gañaa gañaa gañaa rek ak dëgër gi di ko di ko dikku rek mm-hmm. di ko xaar ak nu mu war a poids bi nee nah, mu xëy rek jot ndigal nattu jeex balaa jeex na natt jeex na kon xanit tafat madarati wal balwa bi fadli muxlin li xaadal xulwa lahu shukuri ilal jannati daaril muna wal amni wal minaar yaskuru kulli bil kitabi bila muadati wala xitaab sant la moo tax mu woote sant sant sant sant sant la leen ma yàlla ah ku ma ci sant la yàlla lu ma ci yàlla defal lu bokk muy bis boo xam ne ku màggal bisu tukkeem ba aj na umra jihaad am na yool ba xam naa loolu sax day duggaat ci bokk ci laaj dama la xaw yeeram ci jotaay bi ak kii waaye bokk ci laaj yi kenn Serigne Touba gi nga xam ne foo ko waxee am ñuy rëccal seeni dënn te buñ ne kenn Serigne Touba gi jëmee ko ci kenn yàlla gi waaye Serigne Touba daa def lu kenn defut am lu kenn mënu amut man lu kenn mënu ni fi mu jaar ko fi jaar rek parcours jaar def li mu def dul ko ko def yooyu lañ koy bàyyi xel xam nga yooyu moom ay détails la rek yoo xam ne amul solo Serigne Touba moom kenn li li li li Cheikh Ibrahima Diop di wax ne fatan fadluhu fi sharq wal gharbi sha'i'un wa fi jinn wal amla wa fi al a'la allahu akbar ñu ci penku ba sow bi ku mel ni moom amul loolu kon bindkat yi borom xam-xam yi al alawi ta ku ñuy wax a tijaan binu baaba al alawi moo waxoon ne xaasal xadim min al kamali ajaiba wa maqamuhu fihi al uyunu taxaaru لم تسمع الاسماء قط بمثله وشبيهه لم تبزر الابزار الله كم ملني يعني موم نوب مسوكو ديك كم ملني شامل بام بر مسوكو غيس شيخ لام جبنا فما للقديم البري من عهد ادم الى اليوم في كل كرام مثيل كم ملني سنجو امول ما دام جوخ ني ديغول ماغال كي ديسان يوسف سانت كو خامنا سما بك سم بك لا نخ لي رك لا ما سانتاني بودي جولي في لا فك بودي وور في لا فك waye li yalla dafa leggeyal bopam ba yalla fay ko mo xamne beug na ñepp jariñu mune sante sant len ma ci yàlla xolam mom bi coono joté mo dem mo dem bi pay gi ñëwee mu ne len leen ma yàlla kuma ci sante la yàlla day luma ci sa borom defal nu bokk xol gi bax gi bax muy bis bo xamné hmm bisu xeet la feet la hmm bisu ndamul islam la le seigne abdou rahman Mbakkeem Cheikh abdou Khoudous di wax ne euh wax ne wax ne lam yadri insu mislahu fi ma hawa wal kullu hara li sha'nihi al maktum ابن nopp mës a gis ku mel ni moom waaye wal kullu yaalamu annahu fawqa alladina xakaahumu taarix bi taamim nee na li ñu mën a xam daal mooy dañuy wax ne moom mii daal moom sëriñ bi ci boppam mooy ki nga xam ne ku nu histoire ru islam ma sa nettali xam nañ ne sëñ bi jiitu na la ca kaw ca kaw ci melokaanu moom nga xam ne qaddamahu wa qaddasa sirrahu li yuqiima mabna diinihi lmahdum yàllaa ko jiital teral ko taqdis ko ngir mu tabaxal ko diineem ji loolu la sëñ Tuubaa def woote bis bi bis bi nag la ma doon wax rek ba mu koy wax da ne da koo côté koo xam ne sama mbég sa mbég la na ma sant la yàlla jërul détail euh, <laughs> xam ne sama mbég la. sa mbég la sa mbég la sant la ma ci yàlla euh, des naa ak yow yaa xam ba xam mbégam sa mbég loolu sa affaire waaye daal boo doonee mbégam daal muhibbi ko du bishrin azimin mu abadi wa man salla si yaqli foo kamit oh. no stress ku lay bëgg ku ne ci lay dund dégg rek. ku lay noonu ku ne ci coono dang dang ak lu nekk la waaye mooy bëgg a dóor bi Asiir Mohamed ko kon ñoo ngi sant mbokk yëpp di waajal màggal gi te ñaanal Cheikh Mountakha suñu borom yàggal ko fi ndax mm-hmm. màggal gi moom màggal spécial la mm-hmm. ndax euh, dog nañ ci mbuumi jaam yi euh, mm-hmm. donc l'islam jot na ci boppam te bis bi mënutoon a yem ak bis yi ci des ndax yi ci des yëpp mën naa am nu mu demee bii day bisub jënd borom daa jënd ba wane na ci lu leer a leer kon nan màggal si ci yar ak teggin te lu waaye am def ko ci. te bàyyee suñu bopp sëñ bi looloo gën a wóoru ci des moom mbirum sëñ bi suñu yoon nekku ci <laughs> ginnaaw wopp dee woppul dee moom ñu bàyyee suñu bopp ak sëñ Tuubaa rek euh, ku dee ci sëñ bi it euh, alhamdulilah te moo a taw a jagee. Mm-hmm. kon nag ñoo ngi leen di sant yéen waa euh, télévision bi di leen gërëm. Mm-hmm. di jégalu bokk yi nag. ci ci ci ci léegi léegi yenn yi. Mm-hmm. jégalu gi mooy sëñ bi moom kenn ku nekk rek moo lay dimbale ci boppam. Mhm. ba boo ci bëggee wax sax mu xaw a jafe. waaye maa ngi ñaan taalibe ñaanal nu rek ñu mën a am courage am kattanu bu bëgg cee leeral liñ ci bëgg a leeral lépp ndax am na yooyu bu dee am yu bari rek mën naa am li nga bëgg a leeral doo ko mën a leeral xañ na yëg-yëg gi lay doon ci xol bi. Mhm. sant sëñ Mortala kan mi sëñ Moustapha ñoo ngi leen di mhm. jaajëfal bu baax. di sant sëñ Abdoul baax kon noo ngi leen di jégalu di balu ñëpp wax ku ci dégg njuumte mu jéggal na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu yaakaar naa sëriñ Moustapha Ndiaye bég na ci jotaay bi mel na ni itam mbokk yi ni topp bég nañu Cheikh Basirou mi ngi feeñal mbégteem Cheikh Abdoul Baaxi Dia ñuy gërëm baax a baax soxna Mariama soxna Mariama Diop ñu ngi lay jaajëfal yow tamit baax a baax ànd ak moom liggéey bi muy sunu naataango bàyyi ko ba RFM euh, di jaajafal bu baax itam Serigne Cheikh Ndiaye euh, borom euh, Louga TV ñoo ngi koy siyaar baax a baax di jaajëfalaat baax jëwriñ sëñ Gana Messere Makhtar sëñ Moustapha li wala fi daan koo ne damaa xamul nu ma koy def nam la dafa tax te ku ne xam na taxawaayam ak yitteem ci diine lislaam kenn ku nekk itam xam na ni mu yittewoo Serigne ba sañoon buy waxtaanee Serigne Touba woo nit ñi fay di waxtaan ak ñoom Serigne Touba bëggam Serigne Touba Euh, ronkoñ dafa sori ci nit ñaar rek ko koy génne mbégteeg naqar té ku ne yek na bimi addu ni mu touré ay xéewal ngir yek gi mu yek Serigne Touba dama faral di wax nak ne bu Serigne Touba woté won ku ne bu ko dem buñ la wooyee ci magal gi won nga wuy la bindkat kat ne jaajëfati xaadimu rasulullahi diine yaa lay bëggé islamullah moy ka dama loon géej rasulullah mo julli lon boromam fil barillah soppé boromam borom baytullah ahmadu mam jaare jaaratullah jëm jojju mo dem liggéey ba ñew wax ne ijxal rujuhi ila xawmi saadatana wala tak fi naa yow mi jamin xalqi niirana jëmm jooju la ñuy béggee moom la ñuy bégge mbégam sunu mbég mooy mbégum sëñ Tuuba moom la ñuy buñ ku ci woo duñ ci xalaatat leen jërëjëf si ngànna jërëjëf mbokk yi kon lii moo nekkoon seen émission spéciale bi ñu doon liggéey waajale ko màggal Tuuba mu nekkoon fii ci kër sëñ Gana Messere Maxtaar ak seen bokkum taalibe bi Moxtaar Kan Ndongal Tuuba wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin fallahu ijaasi ana xayra jasaayi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf fati sëriñ Tuuba